sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi ngi gane àdduna ci atum 1886 ci dëkk boobu di Dagana doom la ci sëriñ Tafsir Ahmadou Diop ndax waajuram mokkal gu mu mokkaloon alxuraan moo tax ñu ko daa wooye sëriñ Tafsir waajuram wu jigéen moo tudd soxna na Diop ñu bari daa ko wax soxna xayaar Diop ndax waajuram wu góor moo tuddoon sëriñ xayaar Diop waaye kii di waajuru sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana di soxna xan xànna xànna nag ci wolof anta lañ koy wax waaye arab yi xam na la ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine jóob li mu ganee àdduna dagana moo tax ñu ko daaw wooye sëriñ Mouhamadou Lamine jóob dagana am na ñu mu bokkal soxna sii di soxna xam na jóob ñu gënoon koo xam ci soxna xayaar jóob ndax li mu nekk doomu sëriñ xayaar Diop ñu leen di wax sëriñ Cheikh Diop dagana sëriñ xayaar jóob dagana sëriñ Makhtar Diop dagana ak moom sëriñ Mouhamadou Lamine Diop dagana kon ñett la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana bi matee dal alxuraanul karim waajuram di sëriñ tafsir Ahmadou jóob moo ko dalal lii di alxuraanul karim ginnaaw bi la ko jox ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Jenn ginnaaw sëriñ Mouhamadou Jenn nag la ko jox ab bu ñu doon wax sëriñ Mamour Kébé nekkoon ci Fuuta nekkoon kaang fóori dolli ca sëriñ Mouhamadou lemin Diop Dagana nekk na fa ba bind fa ñaari yoon kaamil bi ginnaaw bi nag la dellusiwaat Dagana ci waajuram sëriñ Ahmadou Tafsir Ahmadou Diop mi foofa itam fa la bindee lii di ñetteelu kaamilam bi muy ñibbi sim njàng ci atum 1903 la tombeek seexul xaddim tubaab bi convoqué waat ko ngir fas yéene ko yóbbu gànnaar ci résidence surveillée boobu bi sëriñ tubaa seexul xaddiim jógee ndar laata muy dem gànnaar am na juróomi fan ci dëkk boobu di dagana ci kër sëriñ tafsir ahmadu jóob mi di waajuru sëriñ muhammadu lamin jóob dagana fala ko sëriñ muhammadu tafsir ahmadu jóob mi joxe juróomi doomam yi muy sëriñ xayaar jóob dagana sëriñ cheikh jóob dagana sëriñ maxtaar jóob dagana sëriñ muhammadu lamin jóob daggana ñoom ñeent ñi ñoo bokk benn waajuru jigéen jigéen di soxna xaana xayaar jóob ak seen doomu baay bi muy juróom muy sëriñ Malick Diop Dagana waaye seexul xaddiim moo waxoon sëriñ Mouhamadou Tafsir Ahmadou Diop mi sëriñ Mouhamadou Lamine Diop wéel am njàngam ginnaaw bi nag la sàkku mu fekk si ko foofu ci gànnaar gànnaar googu sax nekk na fa ak moom caatu ba gàtt mu doog faa jógeek moom waajuróom wi di ahmadu tafsir jóob mi sëriñ tuubaa seexul xaddiim sax way na ko ay way ngir nawoon jikkoom ak kóllëre gum am lante woon ak moom tax na mu def ay way ci jëmm ju tedd jooju ñu teewlu way yi seexul xaddiim jagleel waajur sëriñ muhammadu lamin jóob dagana di sëriñ tafsir ahmadu jóob kalkalul yawma minni saara mahjuba karhan li tawdihi xilli ahmadan jóoba إن أبدع غاب حتى صار ساقعة فلن يزال لدينا حول محبوبا لكن علمت بأن الله مالكنا متى يريد قطع أمر كان مجهوبا فهب له يا إلهي نيل مطلبه وافتح له كل باب كان محجوبا الكلكل اليوم مني صار محجوبا كرها لتوديع خلي أحمدا جوبا إن أب أو غاب حتى صار في بعد فلن يزال لدينا حوض محبوبا لكن علمت بأن الله مالكنا متى يريد قطع أمر كان مجبوبا فهب له يا إلهي نيل مطلبه waftaalahu kulla kon bi sëriñ tubaa seexul xaddiim jóge ci kër waajuram di dem gànnaar àndut ak sëriñ Mouhamadou Lamine jóob Dagana waaye biñ ci tegee daanaka lu jege at ci atum 1904 jàpp 1905 nag la fay doog a dem seeti ko bi mu demee seexul xaddiim da koo téye ci gànnaar wax kii di sëriñ Mad lemin jóob Dagana mu wéel lii di am njàngam ki ko doon jàngal ci gànnaar moom la ñuy wax sëriñ du Mbàkke Ture moo ko doon jàngal xam-xam ci gànnaar gànnaar googu sax kii di sëriñ Mouhamadou Lamine jóob Dagana bokkoon na ci ñi daan nodd juróomi waxtu yi booba itam tuut tànk la bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jógee gànnaar ñëw ca yéen jolof àndoon nag kii di sëriñ Mouhamadou Lamine jóob Dagana ca yéen jolof foofu itam joxoon na ko fa wala boole woon na ko fa faak ñetti Mouhamadou Lamine yii ñu di ko jàngalaat lii di xam-xam muy sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye sëriñ Mouhamadou Lamine Faati Mbooj ak kii di sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Xari Faal ñett ñi ci ca yéen jolof lañ nekk nekkoon di jàngale xam-xam yoroon daaray xam-xam ja sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi jaar na ci ñoom foofu itam ci ca yéen jolof foofu la sampe lii di kër sëriñ Touba Seexul Xaddim moo ko joxoon ndigal mu samp kër boole ko soxna suñuy wax soxna maam Faati Binta Guèye kon bi sëriñ Touba Seexul Xaddim jóge ca yéen di ñëw njaareem bokkoon naag wala àndoon nag Seexul Xaddim ci njaareem ba tax na nekkoon na foofoog Seexul Xaddim amoon na kër sax ci njaareem ci wetu gànnaar seexul xaddiim doyloo woon ku seexul xaddiim daa laaj xalaat ba tax na bind na lu bare bare bari ci seexul xaddiim bind na itam ay xasida yu takku ngir di ci jàngale nekkinu seexul xaddiim ak lii di taxawaayu yoonu murit ñu ràññee ci rek am na téere bu ñuy wax irwaahu nabi ak téere bu ñuy wax ixnaawul xaadi am na téere bu ñuy wax minnaahi misxiya am na téere bu ñuy wax tarixul masjidi dayni ay xasida yu takkoo takku yoo xam ne bind na ko ak lii di ay way yu mu jagleel njabootug seexul xaddiim gi moo xam seexi la moo xam doomu seexul xaddiimi la ak lii di yoonu murit kii di sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ba jamono jii ñuy wax ak yéen bari na conférencier yu bari wala boroom xam-xam yu bari suñuy nettali jaar-jaaru seexul xaddiim wala lenn ci nekkinu seexul xaddiim ci am mbindam lañuy sukkandiku kon ku jege woon seexul xaddiim seexul xaddiim sax daana ko wax muy bind kon bari nañu baree bari di netti li dara ci yoon wi ci mbindum sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mii lañu sukkandiku kii di sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana sancul nag ab dëkk waaye nekkoon na ci dëkk bii di Kayal mook cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu seexul xadim sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñaari doomi seexul xadim yi ceroog biñ matee amu tur moom la seexul xadim yónni woon ngir mu dem wutal leen ay tur muy sëriñ Sohaybu Mbacke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim ak kii di sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke ñoom ñaar ñi seeni tur sëriñ muhammadu lamin jóob dagane mi moo ko joxe kii di sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke seex muhammadu lamin jóob def na cay way ñu teewlu way yim def ci sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke keroog bi ko seexul xaddiim woowee ne ko demal wutal kii di seex saalihu mbàkke aw tur wala demal tuddi kii di sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke lii mooy way ya jaalana bi fadlihi saaliha baaxin lana jaada bihi saaliha abqaahu samsan fi chama dahrihi yasqulu minhu wajahu kaaliha abqaahu mukmilan lahu hadiyahu mubaarakan saxaxan saaliha kii di sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana bi sëriñ Touba Seexul Xaddim làqoo ci le 19 juillet 1927 mook naar bii di Mohammed Abdourahman Altannexiyu ñoom ñaar ñoo taxawu kii di sëriñ Touba Seexul Xaddim ci njaareem keroog ci guddi bi ñuy indi sëriñ Touba Seexul Xaddim ci tuuba ngir di ko jébbal si lii di boroomam keroog oto bi duudu sii sa dawal ngir ñu indi sëriñ Touba Seexul Xaddim ci dëkk bu sell bii di tuuba Touba Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ma nga woon ca biir oto ba biñ ñëwee tuubaa itim mbooloo mi taxawu Serigne Touba Seexul Xaddiim itim ci dëkk bu sell bii di Touba ngir ñu jébal ko boroomam Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana bokkoon na ca lim ba kii di Serigne Mouhamadou lemin jóob Dagana mi ngi génn àdduna bisub dibeer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru gàmm ci atum 1387 ci gàddaay gi jubéer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru gàmmu ci atum 1387 ci gàddaay gi dëppoo muy dimanche 2 juillet 1967 dimanche 2 juillet 1967 ci njaareem njaboot gi ne bu fekkee ne kenn ci doomu seexul xaddiim yi laaju ko ñu denc ko lii di njaareem bu fekkee laaj nañ ko nag fu bëgg ñu denc ko ñu denc ko kii di cheikh mamadul faadal mi nekkoon xalifa général de mourides moo wax njabootu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nañ ko ko indil ci dëkk bu sell bii di Touba kon sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana njaareem la génne àdduna waaye tuubaa lañ ko denc ci ndigalul ki fi toogal seexul xaddim di cheikh mohamadul faadal mbàkke sëriñ mohamadu lamin jóob dagana ay xalifaam nii la tëddee sëriñ mahmoud jóob moo ko wuutu ci atum 1967 ba atum 1978 ci atum 1978 la ñaareelu xalifaam bi toog di sëriñ cheikh jóob dagana ibnu sëriñ mohamadu lamin jóob dagana ci atum 1978 ba atum 1997 atum 1997 ba nëgëni nag teelu xalifa sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana bi moo fi nekk ñu koy wax sëriñ Mourtada Diop moo fi nekk ba jamono jii ñuy wax ak yéen ñu koy ñaanal bu baax a baax lii di darajey waajuram wa di sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak li mu daj ci yoonu murit ak tey jii bu nit xamee dara ci seexul xadiim lu bari ci moom lañ ko sukkandikoo ci mbindam coono booba ak yiw woow yàlla na ko yàlla tuur ci askanu képp ku yaakaar Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak soppeem ak képp ku am mbindam saf te suñ boroom teg loxoom ay sëtëm te guddal seenu fan te may leen seen barkeb maam ba e kii di sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana am na bis ñu koy fàttaliku ci njaareem di dëkk bi mu génnee àdduna ginnaaw bu mu génnee àdduna ak njabootam nag wutal nañ ko bis biñ koy fàttaliku ñu tudde ko lii di ak màggal ci njaareem lañ koy amale waaye lii di màggalug sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci bis bi mu génnee àdduna ci weeru olof di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru gàmmu lañ koy fàttalikoo ci njaareem màggal gi nag daanaka màggalu bëccëg lay doon waaye nag dana guddi lool ci ngoon gi waaye daal mën nañoo jàpp ni màggal gi màggalu bëccëg la bu ko defee njaboot gi ñaanalaat bu baax jëmm ju tedd jooju liggéeykatu seexul xadim ba di cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci ay ñaan ak ay salaatu xalaat nabi alxuraanul karim ak jëf ju am solo ji mu def ci yoonu morit di ko ci ñaanale tey taasuwaale ca barke ba te daraje yiw woowee ak barke boobee ak bindukatu seexul xadiim boobee yal na yàlla saafara lépp amiin fara lépp